tubaab nee na am na ay constitutionnaliste sénégalais yoo xamante ne ne ñoo sax daal di tëgg constitution réew Afrique yu bari mu ne xam na ci ay naataangoom ñoo xamante ne ne ay enseignants chercheurs nañu ñoom ci seen bopp lu weesu constitution yi nga xam ne ñoo ko bind ay réew yu bari dañu leen di woo di leen di seen i jafe-jafe ngir ñu mën a xam dëgg-dëgg seen constitution dëppoo na ak jamono wala déet. professeur dolli ci ni laata Abdou Diouf di ñëw ci réewum Sénégal amoon na ay conseil juridique yoo xam ne ñoo doon xelal président de la république yu Sénégal ñooñu naam sax ay français nañu woon waaye fi mu nekk ni mbir yi tàmbali naa soppeeku. moo tax mënula nangu ay at gannaaw si gi président de la république Macky Sall di ñu delloowaat ginnaaw ngir lewal ñetteelub mandat comme ñu ko siwalee ci yéenekaay bi nga xam ne fële ca France la fekk baax di Figaro ci édition bu 20 mai 2023. bu ñu sukkandikoo ci sunuy natango Guillaume Drago bi nga xam ne atam toll na ci 62 ans nangu na ne Macky Sall mile mën na samp ndëndëm ngir nekkaat candidat ci élection présidentielle bu 2024. li nag njëkkeew ko ndax ay ñu ngi fàttaliku Guy Carcassonne bi nga xam ne. ne professeur de droit public la ci université Paris Ouest Nanterre ci atum 2010 Idrissa Seck demoon na consulter ko ci article 27 bu constitution bu Sénégal professeur Mbaye Thiam dem sax ba mel ni ku sampub laaj di laaj fan la ñu gis-gisu Guillaume Drago bile di professeur de droit ci Assas nara yóbbu mu mel ni complexe bi nga xam ne moo toppoon sénégalais yi ci suñu jamonoy maam ba léegi nga xam ne tubaab yi ñoo ñu jiite woon ba léegi mu ngi fii mu naxarlu doxalinu politiciens yi nga xam ne tey dafa firndeel ñenn ci seen i gis-gis ne tubaab yi ba léegi ñoo nekk di diriger fii ci diwaanu Afrique maanaam mbirum ingérence étrangère ba léegi mu ngi fii. professeur gën a leeral ne ñii donte na sax du ñoom ñoo bokk ci traité yi nga xam ne moo taxoon ba réew Occident yi doon coloniser Afrique exploité Afrique waaye nag gëm na ne du ñii ñoo naxal naxa libéré réewum Afrique yi rawatina jamono bi nga xam ne magistrat yi ci seen bopp leeral nañu lépp li fi ne kay mooy mbirum politique politicien ngir lëndëmal xelu askan wi historien bi nga xam ne enseignant la nekkit archiviste fële ca EBAD nga xam ne am njàngam li ci ëpp mu ko amal fële na ne Guillaume Drago bi nga xam ne ancien doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques bu Rennes la nekkit professeur ci université bu Paris Panthéon Assas bokkoon na ci étudiants yi nga xam ne ñoo nekkoon ci extrême droite foofee ca France ñoom ñi sax am na ab groupe boo xam ne dañ ko taxawaloon groupe boobee li ko taxoon jóg mooy raxas buñ ko mënee tudde noonu wala boog jële fa bépp étranger boo xam ne der bu ñuul nga am wala ngay arabe wala sax ngay asiatique foofee ca maanaam daal mbirum bot di konte ci wàllum xeet fes ci seen i yëngu-yëngu. News.